man ko la عليه خير صلوات سمدي ربي يا من على محمد عليه خير صلوات سمدي ربي يا أحمد على محمد عليه خير صلوات سمدي في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات بردني ربي من الإسراء لخلد اليقين ذا إدراكي كتابه وليقود نزلا على دخولي الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان حبك معي حيث أكون يا من له بإلهي الركون أنت الذي قلت المصائب سعى لي ولي قلت اليقين والسحاب نفيت فقري لسواك أبدا غير مغن بابتخار عبدا نفيت فقري لسواك أبدا يا غير مغن بابتخار عبدا غاية الولا أخطر يسرهم يا رسول الله عليه تسليم المفسلاي ملكني القرآن رب العالمين وقاله لي الأمين نافع فانفاقا وقاد للإكرام والإفاق خدمة خير العالمين سلبت لي الكرامات من فانسلبت يقودني قد الكرام ديم ولي سوى نحو التخرجيم رضي عني الله والرسول وأهل بدر وأتاني سول فازنا ياتي ببقاء الله وبالكتاب ورسول الله قلبي وديعة لربي ولسان ما جواري بإحسان يقودني بعصمة للجنة من سالني عن الأذى بجنة ربي أحمد على محمد نعم وسيلتي لرب الصمد ربي أحمد على محمد وسيلتي لرب الصمد مدى الخبير لي والكبير de لن هنات من إيماني بفرج يا واهب الأمان نميل أوصل جميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين اكتب سباء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم لمن يحبنا كما يمرها لوجهك الكريم ولفرجا بلا

yaa xayra dayfil sa

يا العلوم والأعمال jaay Mustafa maqaami min al

asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu seetaan ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baala àq di leen baala àq waaye di leen ndokkeel saa su nekk ci weer wu tedd wi nga xam ne nii moo di weeru koor wi tey jii di alxames fukki fan ak juróom yemoo ak le 6 avril 2023 niñ koy àndi ak yéen rek fii ci tubaa ci kër Serigne Touba gi jàkkaarlook jumaay ji. ci dundal weeru koor gi ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ci jàng alxuraan jàng xasida lépp mu teg ko ci yoxooy Hizbut Tarqiyyah mu ànd ko ak mboolem mbokki taalibe yi programme tey bii nag tombeek fukki fan yi ak juróom kuréel bi ngeen gis ñuy jàng di jàng yaa xayra dayfin di eh, xar sëriñ bi di ko teeru mooy kuréel 1 bu Hizbut Tarqiyyah daara Bambey waaye kuréel adolescent bu daara euh, Dakar ñoo fas yéene jàng ci biir salle bi ci kanamu sëriñ bi xam naa ne incha allah buñ joxee sëñ Mansour Seck kàddu gi dina leen dalal ñu wax. waaye mbokk yi comme niñ koy àndee ak yéen rek saa su nekk ci ànd ak yéen lépp lu xew fii ci biir résidence bi ngeen mën ko seetaan en direct ci ay bërëb yu fasantikoo moo xam ci internet bi wala ci télévision yi wala rajo yi noonu lañ koy ànd ak yéen nag diirub weeru koor gi incha allah rabbi lépp nag tàbbal ko ci liggéeyub Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bi nga xam ne ni jëwriñam di Cheikh Mouhamadul Mountakha moo koy taxawu ngir nag yeesalaat jéego yu am solo yooyu nga xam ne ni saa su nekk duñ tàyyi di ko wax ndax Serigne Touba Cheikhul Khadim buñ ko waxee rek. Euh, suñ xel dem ci taxawaay bi nga xam ne ni amoon na ko ci koor rawatina nag moo xam ca tukki ba wala nag bi mu ñibbisee ca njaareem loolu tax na nag jéego yooyu dañ koy daal di yeesalaat fii ci tubaa ci ay bërëb yu fasantikoo ci jàng alxuraan jàng xasida waaye ay waxtaan yoo xam ne nii ngoon gu jot rek dañ koy daal di amal fële ci njaareem itam fulku ba euh, noonu lañ koy daal di dundalee bët bu set ngir nag euh, dundal weeru kor wu tedd wi nga xam ne nii weeru ngëneer la weeru tawfeex la ñu nag ginnaaw bu ñu ubbee ba pare niñ koy àndee ak yéen rek dañuy dem ci biir salle bi jamono yi nga xam ne nii kilifa yi bu ñu kilifa yi nag. di njabootuk Serigne tubaa gi nga xam ne nii ñoom la Cheikh Mouhamadoul Mountakha bokkal ku tedd ki ñuy teew di ànd ak moom liggéey bu am solo bi dañuy faral di yëkkati ay kàddu yu am solo jëmale ko ci jataay bi jëmale ko ci jëf ji waaye jëmale ko ci ay soññe ngir ñu gën a bàyyi xel jataay bi gën bàyyi xel liggéey bu am solo bi nga xam ne nii leen rek lañ ci sàkku muy ngërëmal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon nag ñu ngi daal di leen euh, ñaanal tawfeex rek di ñaan tàbbi ci ngërëm loolu fàttali leen programme bi rek Euh, kuréel gi ngeen dégg muy dégg kuréel gi ngeen dégg muy jàng muy kuréelu euh, Hizbut Tarqiyyah Daara Bambey ñoom ñooy gàttandu sëriñ bi bu paree ñoo koy gunge waaye kuréel adolescent bu Daara Dakar ñuy fas yéene jàng kon ñu ànd ak yéen ba ci biir salle bi ba ci kanam incha allah. principal bi nga xam ne nii foofu la sëriñ bi di dugge waaye kilifa yëpp fi la ñuy duggee ñi ngeen seen ñu taxaw mën nañ cee lim sëriñ Mor Seck sëriñ Basirou ja ñoom nag diru weeru koor gi liggéey bi dañ ciy jàpp bu baax a baax ngir yéwénal mbokki taalibe yi rawatina kilifa yi ñu mën a dugg saal bi te benn jafe-jafe du am di liggéey bu am solo boo xam ne ni liggéey bu métte métti la waaye lépp nag dañ ko tàbbal ci cadre euh, liggéeyal sëriñ bi ñoom loolu moo tax tey jii ñu fas yéene seq ak ñoom ay kaddu euh, liggéey bu am solo boobu ñu leeral ñu ci tuuti organisation bi kon xam naa dañuy tàmbalee ci sëñ Bass ni ñu ko waxee léegi rek diiru weer bi ñu leen di gis ngeen di taxawu liggéey bi fii nii ci euh, résidence di taxawu kilifa yeeg yooyu loolu mën a tënkal ci liggéey bu am solo bi. jërëjëf sëñ Ablaye ñu ngi leen di ziare bu baax di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax te xam ne depuis bi weeru koor wi teroog léegi di ñoo xëy fu deux heures ñëw jaayante ko ñëw si ndigal ñëw ànd ak yéen liggéey bi nga xam ne ni moom la moom la sëñ Muntaxa di def fii mu doon loo xam ne nii ñëpp ko naw mu koy ànd ak taalibe yi ak mbokkam yi nga xam ne nii ñoom la bokk Sëriñ Tuubaa ñëpp loolu yi nag ak ràññee da si am solo lool ndax uh, bunt bi doon na fa xam saal bi xat na xat goo xam ne nii il faut ñu ràññee kilifa yi ba ñu suñ ñëwee ñu mën a jege sëñ bi mën ko wéetali sëñ njàng mi nga xam ne ni moom lay defar liggéey bi nga xam moom lay defar Sëriñ Tuubaa ñu def ko loolu moo a leen ñuy saa bu ñu xëyee ñu nekk fi di ko jaayante fas yéene ci liggéey Serigne Touba liggéey Serigne Touba nag yombul ndax euh, da nga siy jànkonteeg ay jafe-jafe yu ne dang nga siy jànkonteeg lu ne waaye teewul ñun dañuy fas yéene takk suñu digg rek xam ne Serigne Touba la ñuy liggéeyal lu ñu kenn ku dul Serigne Touba la ñuy liggéeyal liggéey Serigne Touba nag moom nañ ci góorgóorlu rek fas yéene ci liggéey Serigne Touba loolu moo waral ñu nekk si ak euh, sëñ Mor Seck mii di jàppale ak euh, Sadex ñu fas yéene see jaayante rek liggéey Serigne bi xam naa bala ñu jox kàddu gi sëñ moor yan kàddu ngay soññ mbokki taalibe yi ndax wax nañ ko léegi fii dafa mel ni kilifa yi leen fi gën a ittewoo waaye dañuy gis yenn mbokki taalibe yi xam naa xër ci xes yi moo tax ñuy xar faral di ñëw di buuxanteeg yooyu boo leen doon soññ wala nga leen di dénk lan nga leen di wax waa li ñu leen di wax rek ñu gën a jox ma wor ma barab bi te xam ne barab bi barabu Sëriñ Tuubaa la kër Sëriñ ñu xam ne ñoom ñoom la ñuy liggéeyal muy bu dee sang si nga xam ne nii sang su ndaw si la it sang su ndaw sax mu waaye sang si ñu war warmaal kilifa yi nga xam ne ay kilifa yu mag lañ suñ ñëwee ñu man di toog jataay bu xaw a yaatu pour mën a jàng si xasaay di sëriñ Tuubaa yi fas yéene liggéey sëriñ Tuubaa fas jege yi sëñ Muntaxa saa boo gëstu gis leen ndax ñoom it dañuy wéttali sëriñ bi rek ndax euh, sëñ bi loo xam ne daf ko digle mu ñor ko ñor goo xam ne nii euh, ni mu ko ñoree mënu su ko wax kon nag euh, ñooñu li ñuy def daal moom ñu gën a góorgóorlu xam ne fii kër sëriñ Tuubaa la ñu gën a jox war ma barab bi jërëjëf sëñ Basirou kon sëñ Mor xam naa ne kàddu yi sañ Bas yëkkati léegi rek daanaka euh, mattale na waaye nga yokk ci ndax gis nañu taxawaay bu am solo bi nga xam ne nii ay at a ngeen ànd ko as isbu ak isbu taraxiya ci biir ndigalal Cheikh Mouhamadul mun lile. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñoo ngi leen di siyaar bu baax di sant yàlla bu baax a baax ci biñ ko fekkee ba tal ko ànd ak sëriñ bi liggéey bi li ñuy wax daal mooy Euh, dañuy sant yàlla di sant Serigne Touba di sant Serigne Mountakha di ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko tawféex may ko fan gudd ak wér ndax lii muy def nii yombul dajale bokk yi ñoom ñëpp ñu ànd doon benn daje ci salle bi gisee ne euh, loolu dara lu ko dàq amul li ñuy soññee nag mooy ñun mbokki taalib yi nga xam ne ñun ñoo fi nekk ak mbokki taalib yi xam ne ñoo fi ñëw di ñu fi fekk suñu ñëwee ñoo xam ne maanaam fii bërëbu bërëb bi ko xool ni ko sëriñ bi tuddee nga xam ne sàkku si maanaam root bërëbu rootukaay la ku ñëw danga ngay root si waaye bu fi kenn ñëw di fi jëlee safaan ba lu fi waaye jëlee loo xamante ni maanaam bokkut ak li liñ fi woote rek yow yaa na nga fa ñëwee tax waaye soo ñëwee ci li nga xamante ni ni lañu ni la sëñ wootee Hizbut Tarqiyyah ko da nga fi am lu kawe sa njort loo xamante ni da nga dem a dem ba xam ne lii nii nga fi doon wut am nga ko ci ci lu wér a wér a wér wér ñi ngi sant sëriñ si nga xam ne si ñoo fi nekk ñëpp di sant baa Youssou mi nga xamante ni maanaam mooy jëwriñu liggéey bi ndax moom moo ñu fi indi di ñu fi liggéeyloo xool ñu ñu doy ko fi ñu ne ñu ngi ci def suñu kem kàttan di ci maslaa ak ñëpp seex seek sang seek ñëpp rek ñu ngi ciy maslaa ak ñoom di wax ni eh, ñu ngi leen di sant yéen ñi nga xamante ni yéen a yéen a yor wàllum liggéey bi di ko tasaare ci fépp rek ñu ngi leen di sant dina gërëm ndax li leen waral lépp yéen a ngi ci man nag yàlla daa dogal dama mënut a wax moo tax waaye sëñ Bas li ma ta wax lépp wax na ko ñu ngi siyaare suñu jëwriñ sa dex ak sàmm mi nga xam ne moom la ñu booleel liggéey bi ak njaga sekk mi nga xam ne mooy njiitul dongo yi ñu ngi koy siyaar bu baax di siyaar ñëpp di balu ñëpp ak di bal ñëpp ak jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Mor Seck ci kàddu yu am solo yooyu waaye nag toftal ko ci kàddu yi Cheikh Bassirou mu mel ni tey jii dañoo laal point bu am solo ndax fii nga xam ne nii moo di salle bi yaatuwul euh, yaatuwul tellement waaye euh, sang si ñoom lañ ko réserver rawatina nag ñi nga xam ne dañoo bokk ak Serigne bi ki nga xam ne moo di ku tedd ki ñu wax lu am solo ñoom nag ñuy liggéey liggéey bu am solo ndax bërëb bi bërëb la boo xam ne nii ñun murit yi rawatina nag dongo yi dañ ko war a yemale ak bërëb bi nga xam ne nii mooy fi Serigne bi nekkoon muy njaareem ndax bu ñu gëstoo tuuti ci taarixu cheikhul xadim bu masaa nekk njaareem mag ñi dañu doon am dal dal goo xamante ni daanaka kenn du yëngu te sëriñ bi toogut kenn du yëngu te sëriñ bi jàllut loolu nag dafa mel ni fii ñu toll ci jamono ji mu ngi xaw di tuburanke kon doy na sëkk jot na sëkk nag ñu yeesalaat ak taalibe yeesalaat teggin yeesalaat ak warma xam ne sëriñ ba fa nekkoon la mu jàngale woon lim fi bàyyi woon tey jii mu ngi ci yoxooy cheikh mouhamadul muntaxa mu seq ko ak mboolem ñi nga xam ne ni ñoom la bokkal sëriñ tubaa cheikh ahmadou bamba xaadim rasul kon daal nin ko waxee rek di gën a woote ci dal gi yar bi ak teggin yi ci ñi ko sañ a wax ci biir kër Serigne tubaa gi ci biir dëkk bi sax lañ koy tàmbalee ci biir kër Serigne tubaa gi rawatina nag ci biir salle bi nga xam ne ni fii la Serigne bi teew ñu jàng xasida ndax sëriñ bi kat misaal la. saa su tabbee ba xas day tàmbali doo ko gis mu yëngatu ndare xasida yi jeex na bu ñaanee nag ci lay door a saafonte ak ñi nga xam ne ñoo di mbokki euh, yi nga xam ne ñoom la bokkal Serigne Touba di saafonte ak ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi loolu yaakaar naa ne taalibe bi bu nekk war na ci am ab jàngat bu mët sëkk ba nga xam ne nii euh, képp koy roy sa Serigne da nga ko war a roy ci lépp kon Serigne bi yaakaar naa ne li muy jàngale da caa nekk kon na ko ñëpp roy na ci ñëpp teg seen bët dolliwaat ko cër joxaat ko war ma gën a gëddal xasida yi xam ne teewlu gi rek mu ëpp solo lépp kon tey jii amoon nañ yéene dugg ci saal bi waaye nag euh, dañ koy bàyyi ba yeneen bés yi di ñëw xam naa jombul Baye Mansour taxaw na di xaar waa kuréel adolescent bu dakaar ngir invité leen ñu wax seen programme bi nu war a jàng ngeen dégg jamono yi xasida yooyu di jolli mu ngi bàyyi ko ci kuréel 1 bu Hizbut Tarqiyyah Bambey tey programme bi nii la fa yéene tëddee waaye duñ tàyyi mukk di jaajëfal ñi nga xam ne saa su nekk dañoo ànd ak ñun liggéey bi moo xam ci wàllum kaaraange wàllum cat gi wàllum euh, wér-gu-yaram lépp rek ku nekk yaa ngi takk sa ndigg di jaayante ngir làq ngërëmal sëriñ bi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne nii ci weeru ngëneel la muy weeru euh, ramadaan di weeru koor gi kon ñun dañ leen di jox dox daje ëllëg ci euh, heure bi ci waxtu wi di leen euh, baalu àq di leen baal àq di leen ñaanal ngërëmal sëriñ bi ci liggéey bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu rahmatullahi taala wa ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi topp ci télévision bi ci réseaux sociaux yi ak ci mboolem support yi nga xam ne euh, tey jii ñi ngi ba tey kër sëñ tubaa gi féete ci sowu jumaa ji di bisu fukk ak juróom ci weeru koor mu dëppook alxames di le 6 avril 2023 euh, ñi ngi fii kon ni ma ko waxee léegi kër sëñ Touba gi ngir lu njàng mi nga xam ne euh, boobu ba léegi ñu ngi koy def ci fan bu njëkk bi jataayu almashrabu saafi minal malbaxi shaafi nga xam ni moom la ko sëriñ bi tudde euh, muy jataay boo xam ni teewlu dundal weer wi ak euh, teewlu xasida yi mooy li nga xam ni mooy li fi gën a matale te ñëpp di ko def euh, tey nag ñu fas yéene jottali leen programme bi nga xam ne waa Hizbut Tarqiyyah muy kuréel adolescent bu dakaar ci njiital sëriñ musaa Tall ñoom ñoo war a jore njàng mi su ko defee ñooñu ngeen dégg ñuy yëkkati xasida yi di xaar sëriñ bi yegg si mu yor gàttandu bi mooy kuréel bu daar istarq bu Bambey ci jiital jiital ku ñuy wax sëñ Mbaye Ndiaye kon loolu mooy njàng mi nga xam ne war nañ ko fi def tey euh, ñu fas yéene jottali kenn ci ñoom euh, mu jottali ñu programme bi nga xam ne euh, moom la ñu war a jàng fii ci salle bi ñu bàyyi ko mu fàttali tur bi door a wax ak nga xam ne mooy njàng. suñ Mamadou gay la suñ Mamadou Gaye waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di fàttali rek ni programme bi tey. ñun kuréel euh, adolescent bu daara dakaar ñoo koy jàng mu waroon a toll nag ci ñaari xasida bi ci njëkk di chakartu rabbiya wa rabbiya yu fiid nga xam ni mu bokk ci xasida yi sëñ Muntaxa Mbàkke jox waa daara ji ngir ñu boole ko ci programme koor gi bi ci topp boobu ñu ngi koy jàng eerup sëñ Mamba Ndiaye boo xam ne da ko jàngoon ci wolofal ñu sotti ko ci xasida gi bi ci topp muy mawaahi kii muqaddamatul amdah eerup sëñ Mayib Gueye nga xam ni ñu ngi koy jàng sëñ Mayib original bi bi nga xam ni moom la daan jàngal sëriñ bi ci wetam mu koy teewlu kon tey noonu lañ fas yéene def ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké jërëjëf ci tënk neen ñetti xasida ngeen di jàng incha allah baa naa sëñ Mamadou jëfe naa loolu leer na nañ liñ ci bëggoon leer na mooy xam nañ jàng mi xam nañ xasida yi xam nañ daa ci euh, defe naa waxtu bi la ñuy jàng waxtu diirub waxtu lay doon incha allah waaw waaw waxtu lay toll tamit jërëjëf sëñ Mamadou ñu ngi lay sant bu baax mën nañ la bàyyi nga delluwaat ci kuréel gi ndax gannaaw ñu ngi lay xaar te balaa yàgg sëriñ bi dana yegg si kon jërëjëf ci ñun kon ni ngeen ko déggee kon euh, kuréel adolescent bu daara Hizbut-Tarqiyyah bu dakaar moom ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy yor njàng mi tey mooy ñi nga xam dañoo diggu dóomu du ñuy mag waaye duñu ñu gone lool ci waxambaane rek la ñuy toll ñoom tamit beneen xeetu kuréel boo xam ne am na biir Hizbut-Tarqiyyah ñii nag Dakar lañ féete te ñoom ñoo yor njàng mi tey incha allah diiru waxtu bu sëriñ bi yegsee ba keroog muy dellu kon lii mooy programme bi ñu leen andiloon tey jii. Eh, ñuy sant bu baax di leen di ñaanal Cheikh Modou Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak kon li am solo nag mooy ñu xam ne eh, liggéey bi moom eh, mi ngi dox ñi nga xam ne ñëpp ñoo ko séq kenn ku ci ne yaa ngi taxaw ci li nga xam ne moo la war su ko defee su ko defee su ko defee ñu xam ne ñi nga xam ne ñëpp ñoo séq njàng mi ñi ngi ñi ngi ñi ngi teewlu ci li nga xam moom lañ leen féetale muy waa sapeur pompier yi ñiy taxaw ñi nga xam ne bu leen dara dikkalee dal leen fi ci jataay bi muy secouristes yi ñoom ñëpp ñu ngi ci ñi nga xam ne tamit ñooy ñu yor wàllu sécurité bi ñi ngi taxaw ci bunt yi ñi nga xam ne tamit ñëpp ñoo yor courant beeg fas lu mu ci mënti doon ñoom ñëpp taxaw nañ ngir lëggeel Sëñ Tuubaa ci euh, barab bi ba nga xam ne dara du ci manqué kon loolu mooy li nga xam ne tey moom lañ leen andiloon euh, nous allons faire une petite synthèse pour ceux qui nous suivent pour dire qu'en ce quinzième jour du mois lunaire de Ramadan, de l'an 1444 de l'Égypte, nous sommes ici au niveau de la résidence des hôtes de Sering à l'ouest de la grande de Touba. L'objet, vous le le même. C'est la réclamation des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, tâche qui a au, par le calife à Isbutar Et depuis lors, ce sont des courelles des les groupes de chanteurs des qui se relaient pour déclamer à qui mieux mieux. mais c'est une véritable rivalité d'ardeur, mais c'est une véritable émulation des plus saines pour que chacun puisse en tout cas donner le meilleur de lui-même pour produire un véritable nectar que le calife, n'est-ce pas, euh, va euh, suivre, n'est-ce pas, puisque c'est un contour de qualité également, puisque tous ceux qui ont été là sont, sont qui ont été choisis euh, le sont après une rude sélection et ce sont les meilleurs qui sont sortis, c'est pourquoi Et il est euh, normal que l'on s'attende à des prestations les plus euh, les meilleures en tout cas possibles que Ismaël pour peut proposer. Euh, je rappelle donc que euh, le groupe qui est en train de déclamer attendant l'arrivée du calife, c'est le groupe 1 de la Dar de Bombay et le maître de chœur s'appelle Serigne Bendiaye. Pour ce qui est de Kourel des adolescents des Ismaël de Dakar, le maître de chœur s'appelle Serigne Moussa Tall ils auront la charge de déclamer les écrits du cheikh pendant une heure et ce cheikh n'est-ce pas qui a posé beaucoup d'actes euh, qui vont euh, euh, euh, qualité de de de l'assemblée qui vont la qualité des prestations puisqu'il a pris le parti d'ajouter encore 38 écrits 38 euh, poème consacré au mois de Ramadan et qu'il a demandé d'insérer dans le répertoire qui sera déclamé chaque jour. Et c'est ce que je fais, puisque vous remarquez souvent euh, que chaque fois qu'on nous dresse le répertoire, il y a un ou deux écrits qui sont désolus entièrement au, euh, mois de Ramadan. Et c'est également euh, la tâche à laquelle le chef s'est attelé euh, quand il est sorti dans l'exil, quand arrivé le mois de Ramadan. mais c'était une occasion pour euh, convoquer, euh, magnifier ces noms glorieux d'Allah, mais également de prier sur le prophète Mohammed, paix salut sur lui, lui qui était seul, seul, tellement seul, au point qu'il prenait à témoin euh, la mère de Mayomba lui disant Donc, toi, euh, ne sois pas trinitaire, et, euh, euh, professe l'unicité de Dieu. Quelqu'un qui prend à témoin la mère, c'est la preuve d'un essailement des plus hein, euh, Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, il faut rendre grâce à Dieu, puisque hein, euh, toute cette contrainte, tout, tout cet toutes ces difficultés se sont évanouies. Aujourd'hui, il ne reste qu'à rendre grâce à Dieu, comme le disait le vénéré chez Abdullah Tout ce qui est contraignant, tout ce qui est difficulté, et euh, tout ce qui est coercition, il l'a endossé seul, mais il ne reste plus qu'à rendre grâce à Dieu et ça doit être une, une tâche aisée. Tâche aisée puisque euh, véritablement le calife invite les uns et les autres à être là, à se concentrer davantage, à vivifier ce mois de Ramadan. Et il est heureux qu'il ait pu le faire depuis plus de 4 ans. C'est le même programme. Il faut donc rendre grâce à Dieu. C'est également dans cette salle le défilé incessant de ses frères les dignes fils du petit-fils de Serigne Touba. Nous venons de voir traverser Serigne Moustapha ibn Serigne Abdoulahad, qui est un habitué des lieux. Nous avons vu Serigne Bassirou Mbacké ibn Cheikh Abdou Khadr, qui est également un habitué des lieux, hein, Mahfouz et les autres et les autres. Ils sont là chaque jour à côté du khalife et il est heureux que ce soit également non seulement un, une, un contrôle de qualité pour, les, pour, la, pour la déclamation, mais c'est également une revue de troupes. Et tous sont là à côté du calife et nous voyons que les uns et les autres s'affairent autour de la voiture du calife qui ne saurait tarder à venir et sa venue dans la salle est le démarrage de la déclamation et c'est une chose qui ne saurait tarder. Vous voyez donc sur les images ce va-et-vient incessant Vous voyez également le responsable moral, Serigne Youssou, Serigne Youssou Diop, à qui le calife a donné toute sa confiance pour l'organisation de cette instance, de cette séance de déclamation. Et c'est lui qui, du début à la fin, d'amont en aval, coordonne pour que tout baigne dans l'huile. Et il est heureux que les choses également marchent. Et il faut rendre grâce à Dieu pour cela. Le courriel également des adolescents est à pied d'œuvre. Ils, ont, ils sont fin prêts, attendant que le calife arrive pour que la déclamation pour démarrer. Nous voyons Serine Moussa Nawel. Si on le voit, ça veut dire que le calife n'est plus loin. Nous voyons également cet entourage, le staff fidèle, ses habitués des lieux, ainsi que le staff qui accompagne le responsable moral, Serine Youssou. Nous voyons Serine Amoutsi Dissambe également, à qui a été déléguée cette tâche de l'organisation hein, au niveau de la résidence pour toutes les euh, sections qui se euh, déploient euh, pour que la, cette déclamation puisse être une réussite. Donc à Palan, hein, on voit l'entourage philippe de Khalif, cela veut dire que donc le Khalif va bientôt arriver et nous vous laissons donc scruter ces belles images et revenir Inch'Allah après la déclamation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa

ربي وربي يفيد وغيره شكرت ربي وربي يفيد وخيره بخيره ليس يفيد الشكر قليل برا يا رسول من بيلي سوانا ساقس الظلم والصفر ولادي لربي والمخفى ويزبه ومن هبهم والله لي كان بالعفيف سعف نفى بهم إلهي لخير كل من ليس يفره أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزؤون ولنا دام سابير في الدجى وكل سجاع راس في الكفر يجزى وسود متى يصل لهم ذو تجرد يبوج وأن يبكي ويمحى التجرؤ المختار لا تنس سرقه فمن ينصرهم فالمدح مدح مخطئ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الخار أمره

تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يصعنون نبي أديب ذو حياء مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن عليم معلم wa sunnatuhu insha rabbi ubayinu nazartu bi kawni abda rabbi xadimahu wa safa bi umri wa daaril muwattinu شكرا بخدمة لخير الورى نعم المقفى المعين كتبت وكلي فارق الذنب والشقاء وقبل اشتهى ربي الذي بعته تركان عافاني السوء والضر والشقاء كلامي ونياتي وفعلي توجها العلا ولي قال أخبابا بهم أزهر المسكان كتبت وقصدي شكر ربي مخاطبا لمن حبه عنك الذي زهزهت الأنكار فاقد الكل يا خير مرسل عليك صلاة تيبها أخجل المسكان شفت دجا عنا وأرشدتنا معا لمن جهده لي خادم أخجل الهدلان لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الواحد القهار رب الورى جلال لك العلم والأعمال والخير كله يا من على الأسلام لك الفل يا مدار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من مع السلام لا أنت إمام الرسل قد جاء أنه والفضل والعلا وفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا مهن فهم فالله لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عدايا بشير تدفع الفقر والمهلال لمن قاده جهل لكم سوء تجرد عذاب شديد يورث الفقر والخذلان لك الدهر أبقي من إلهي سلام طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبر لي بدا بكونك مخدومي ولي أوصل النفعان أني وسعي زكية لمن بك لي خادت تواليف والشرعا عنائي بمرو الله عني موته وصفى حياتي من لغيره كفى سرعا رب البرايا وحده قد نهى كلي بما تير لي من غير موس ولا كلي لساني وأقلامي وقلبي وجثتي الكون الكريم النافع جل النسبي لنا أرسل المختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فائقا جملة التمليك عليك صلاة الله يا جامع الشمل لقد كنت صبارا شكورا وناسحا عليك سلام الله يا ماهي الجهل المعجزات الخارقات التي بها عدا القبل من خير بها جملة الرسل لك السر قد سارت بساق بدعوة كمن شق بدر شاهد samna bil fadli liman anzala al aya allati qultani biha kitaban azizan bayyana al haqq bil fasli lisani wal awsanu abdallah

بشرها كلم يخلق باخ حما كل يزورك مني حيث ما كنت يا مغيث التي لا انتهى لها مديء الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أملاء سيد كفاني بالباقي ذوي السلم والخير يميني عليها زيد خد حوارقا بخدمة خليس المدينة زاهدي يصلي بتسليم عليك الذي نفاق bi xabdatun minka al-aadiya bir-ramyi yadiiruka minni kulla waqtin wa saatin ridaa'un wa sukrun laa fahal hubba fil hayyi كريم عليكم بآلكم وصابكم باخ أباني بالوكيل يبشرك الباخي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة زانني يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيري بك الدارين يا جانب الوحيد يوسل للباقي بشارات نافعه بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبجل كلي كلك اليوم مخدم وإن شاء ربي لا أرد الدهر زاوني أؤكد كل حمل حبي وخدمتي بمن قاد لي خير المقامات بالطيب خزائن ربي فتحت لي وساسها لخير الأزى دنيا أخرى وبرزخ خزائن ربي فتحت لي وساسها لخير الأزى دنيا

لنا يا سعادتي يؤمن كل يوم في السور ينفخون غلبت الغداء عني وزغزغت من تخون إلى خيرنا والكل قد كان يبلغون هديم كراد أنت فاقبل شكوره لوجه الذي منه به فيك ينسخ هديات أمهر بعد توبة لباب من بي فيك أنه خرجت من المتروك بالله وحده وبيني لو بيع به ليس يفسخون ربي محكم هب لهبسس وينهو لغيري لا بنحوي موبه بربي خروجي مع دخولي بمنزلي التفتل لذي العرش قد أسلمت كلي بجايكم وزادي إلى جناته خير منزلي لكم رمت من ربي سلامي سرمدا

يا ذوي الجور والفسق هلال ذوي الإشراك لي قال كلما رجوت وإني ذو شكور على الفرق wa kullan bima faaxal nasaara yakazu zanantu ihtiwaayi kullama rumtu bissafaa wa rabbi li xayri saa fama kaana yakazu

wa kulli wa ma li sana مشززون يقيني إلهي وهو كليتي يحيي القيم يدي ولساني وأفوالي وجثتي كل فاسد وسرت به عبدا خديما بلا غم من الله رب العرش أبغي صلاته بتسليمي للمصطفى المهدي لليمين yaa murid al abda kaza min ummati فرد بجاه المصطفى الأمتي يا مولدا عبدك زاد أمتي كنت صلاة وسلام للنبي في الآل وصحب سوي تجنبي سلم بجاهي وجاهي معه أمته فرج يا واهب الأماني نبيل أوصل جميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين اكتب صفاء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم لمن يحبنا كما ينفرها بوجهك الكريم وجه فرجا بلا الإمام والإسلام خير البشارات بلا ملام ما تدر ربك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبشكور بحق وجهك الكريم هبله إجابة يا من معوك قبله الرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا هب للذين آمنوا وأسلموا فراق في المسجد الذين سلموا مسليا مسلما على رسول في اسمه يا من حباني بسول مسليا مسلما على رسول في اسمه يا من حباني بسول مسليا مسلما على رسول في اسمه يا من مسليا مسلما على رسول في اسمه kuréel un bu Tëngéej bi nga xam ne euh, Serigne Cheikh Samb mooy jiite njàng mi ñi war a gàttandu Serigne bi gunge ko tamit mooy kuréel adolescent bi ngeen gisoon mi jàng tey ñoom ñoo aye suba gàttandu sëriñ bi tam gunge ko kon loolu mooy programme suba bi kon ma fàttali ko kuréel bu Tëngéej ñoom ñooy aye njàng mi suba ci njiital Serigne Cheikh Samb demain, le programme, c'est le groupe des chanteurs de Isbutarkhir de la Dare de Rufisque euh, qui vont déclamer les écrits du Cher devant le Khalif général des Mourides. Et, et il, faut également dire que c'est le, le, groupe qui va avoir la charge d'accueillir et de raccompagner le Khalif. C'est le groupe, nest des adolescents de la Dare de Dakar. nous enchaînons sur nos écrits et sur euh, les, relations que nous faisions sur les écrits du Cher. Oh, nous avons terminé hier avec... Euh, du euh, c'est un poème qui n'a pas de titre propre et c'est l'institut qu'on a choisi pour lui donner ce titre donc, puisque le poème débute par Ya Rabbi Mustafa Mukhtari Donc c'est un poème écrit dans la métrique bassite, comme Bouchra Lana, comme Kataba, comme Okalbukaou. Et il faut dire qu'également, c'est la métrique bassite. Et le poème n'est pas très long, c'est un poème de sept vers, sept vers entièrement dévolus à euh, des prières euh, pour se prémunir, n'est-ce pas, de tout ce qui peut être nuisible pour le musulmans. Et il faut dire que euh, les circonstances de composition de ce poème, l'on raconte que euh, c'est en ces périodes, périodes de, de, euh, d'épidémie de, de, de, hein, que les disciples ont sollicité, ont écrit une lettre au chef pour lui solliciter auprès de lui des prières pour que s'estompe hein, cette maladie qui est en train de faire des ravages. Et le chef a répondu en écrivant ce poème. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que dans le préambule, le poème commence par wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala Donc, comme une réponse à une euh, lettre qui a été adressée à lui. Et ensuite, les premiers mots sont une sorte de notice. Hein, une sorte de notice pour tout médicament. Parce que le cheikh dit euh, fahakum fahakum hazil labiyati shifaan min Je vous recommande ces vers qui sont pour toute maladie. Un remède pour toute maladie, une protection contre toute mauvaise tentative de tout ennemi. Donc, vous voyez, euh, propos exclusif pour montrer que c'est un euh, médicament qui est radical. On parlera d'une panacée, mais figurez-vous, la panacée, il faut y croire. Parce que même dans le dictionnaire, la panacée, euh, l'on montre que c'est une prétention, c'est prétendument une panacée, mais même ceux qui utilisent ce terme n'y croient pas. Mais avec le chef, on voit bien que le terme panacée vaut bien ici, cadre bien ici, puisque c'est un remède pour toute maladie. Et il faut dire également que euh, ce qui a lancé ce poème pour parler un langage, s'il m'est permis d'utiliser un langage presque commercial, ce qui a lancé ce poème, c'est euh, l'injonction du Véné Cheikh En cette période, quand la euh, pandémie de Covid-19 a fait rage, il fait partie des poèmes que le cheikh avait recommandé, que le, le calife avait recommandé de lire. Il s'agit de Ya Rabbi Mustafa Mukhtar Mimoudal et bien Akhwadjikal Karim Ya Hafiz. Donc deux poèmes que le cheikh avait recommandé de lire, que le vénéré cheikh Muntaha avait recommandé de lire. Et à la date d'aujourd'hui, c'est 6 avril, encore à Isbutarkhir, ce sont deux poèmes qui, qui sont lus par les orants après chaque prière canonique. Donc parce qu'il n'y a rien, aucune injonction qui vienne cette injonction du calife. C'est pourquoi jusqu'à présent, mais cette lecture est de mise à Hizbut al soit dit en passant. Et il faut dire que également le contenu du poème euh, est perceptible dans le préambule. Parce que dans le préambule, le chef montre que déjà, hein, ce sont des vers qui sont destinés à se prémunir, n'est-ce pas, contre tout ce qui peut être nuisible. Et déjà, c'est cela le rôle du préambule. En marge maintenant de ce que nous avions dit, cette, cette, cette salutation. Hein, salam, cela montre que le cheikh répond à une lettre qui lui a été posée. Et l'allure, n'est-ce pas, de prière est perceptible dès le premier vers. Parce que le cheikh Ali, la bienséance, il parle à Allah, il adresse au prophète, respect donc de la hiérarchie, et il ne peut tomber dans ce travers parce que quand il prononce la prière sur le prophète, évidemment, il ne peut manquer, quand il euh, évoque le prophète, il ne peut manquer de prier sur lui. Parce que <laughs> euh, il disait que celui qui, dont on prononce le nom du prophète sans qu'il prie à côté est un avare. Et on sait que un avare ne met pas les pieds en, au, au, paradis. Donc il y a euh, cette première allure de respect de la hiérarchie en évoquant Dieu, en évoquant également Allah le Très-Haut. Et ce vers d'amorce s'explique aisément parce qu'il faut sacrifier aux règles de bienséance. Parce que quand on s'adresse à une autorité comme Allah le Très-Haut, mais il y a un respect de la bienséance. Euh, dans nos euh, correspondances administratives bassement terrestres, mais tous les termes les plus grandiloquents sont convoqués quand on s'adresse à une autorité. On parle de haute bienveillance, on parle d'autorité, on parle de, euh, de lui demander d'agréer. Il y a même une formule de clôture pour, par respect pour l'autorité, cette autorité terrestre. A fortiori maintenant quand il s'agit d'Allah et d'Allah le Très-Haut. Donc on comprend que le chef, dans son propos, puisse donner, n'est-ce pas, toute la considération et à Allah le très Donc il commence par glorifier Allah, Ya Rabbi bil Mustafa, donc avec l'usage de la mise en apostrophe qui fortifie davantage son engagement et l'évocation du prophète, l'élu le plus pur. Min Modarin, euh, euh, quand il parle du prophète, il euh, associe déjà ce qui constitue son ADN, à savoir la prière ou bien la, euh, la louange, parce qu'il l'appelle Al-Mustafa déjà, c'est déjà l'élu le plus pur, c'est un très beau nom. Il ajoute Min Moudarin, le descendant de Moudar. Ensuite, Shafin Ummati, l'intercesseur de sa communauté, Fil Badbin Fil Hadari, aussi bien des Bédouins que des citadins. Voyez donc déjà ce premier vers et surchargé au plan de la considération, n'est-ce pas, qu'il voue au prophète, mais on comprend que c'est par considération pour celui-ci. Et s'il avait dit le prophète Mohammed, ce serait déjà assez clair. Mais vous voyez tous ces termes laudatifs qu'il ajoute, mais par égard, par considération pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ensuite, le vers 2 forme couple avec le vers 1. parce que c'est l'évocation du prophète qui ne va pas sans la prière. Hein, c'est une particularité, n'est-ce pas Mais ce, prophète, ce deuxième vers intègre une chute particulière. Parce qu'il dit Protège-nous contre tout préjudice. Déjà, l'allure et la, euh, euh la configuration du poème commence à apparaître. Hein, au vers 3, Matal Mustafa, Préserve la communauté de l'élu, le plus pur de tous ceux qui dirigent tout ce qui se dirige vers elle, hormis l'adoration, est protégé de tout mal. Voyez donc prétexte pour rappeler la seule injonction, même si c'est une protection totale, mais il est un bouclier total qui barre tout, sauf, n'est-ce pas, l'adoration. Parce que n'oublions pas, l'essence du musulman, c'est la seule injonction. Donc on a beau protéger, mais on ne peut pas empêcher l'arrivée, n'est-ce pas, de ce qui constitue une injonction ferme à savoir l'adoration de Dieu. Il ajoute, il ajoute également, euh, donc c'est un propos avec lequel le chef fait autant de coups voulus. Il sacrifie à cette prière de demande, mais il rappelle également un précepte important de l'islam, à savoir adorer Allah, et ceci n'est pas une chose négociable. Au vers 4, Éloigne Satan de leur chemin à jamais. évidemment le nom de Satan ne pouvait manquer d'arriver dans cette nomenclature de tous ces, toutes ces causes de nuisance. Et le, le, le, Satan ne pouvait manquer. Parce que n'oublions pas que euh, le Coran dit de lui qu'il est Adoun Moubinun, il est notre ennemi véritable. C'est pourquoi, dans toutes ces causes de, de nuisance, évidemment, le Satan, Satan ne pouvait pas manquer d'être convoqué ici. Et vers wal tasrifida an mardal jamia bihi éloigne la calamité de tous les malades ce n'est qu'au cinquième vers qu'il commence à parler de maladie même si on spécialise ce poème par rapport au rejet ou bien au bouclier contre la maladie mais le cheikh lui ne commence de parler de malade qu'au cinquième vers pour un poème qui en un poème qui sept mais auparavant cela veut dire que il y a des causes de nuisance bien plus corrosives c'est l'abandon de l'adoration de Dieu eh, c'est c'est toute personne mal intentionnée, mais ce sont là des causes qui méritent plus d'être évacuées que de parler encore de maladie. Donc voilà donc à partir du cinquième vers, c'est vrai qu'il parle de maladie, mais il le concilie avec une certaine note d'espoir. Le lexique de l'espoir commence à apparaître parce qu'il y a une sorte de coup de fraîcheur quand il dit euh, Mujibatil Amnul Bachari qui apporte sécurité et bonheur. Au vers 6, parle de quiétude. Au vers 7, c'est la prière de clôture avec des propos resplendissants, la prière, la bénédiction, la pureté et les perles. Et cette recommandation du calife de lire ce poème, ne l'oublions pas, le calife l'a concilié avec un appui constant, mettant la main à la poche, appuyant les malades, donnant à manger, appuyant en vivre, appuyant même l'État par des sommes, n'est-ce pas, qu'il a déposées pour que l'on puisse vaincre la maladie. C'est la preuve donc que c'est quelqu'un qui a été régalien, même s'il à ce de cette injonction qui consiste à tendre la main à Dieu, mais on n'oublie pas la deuxième partie du verset qui dit On a une responsabilité ici-bas et le cher sacrifie à cela. C'est pourquoi il a recommandé de lire, mais il a également donné le temps. Il a montré aux gens qu'il faut porter le masque, il l'a fait. Il a donné des villes pour les appuyer et il est allé même plus loin. Il a donné des sites pour qu'on puisse construire un, un la preuve donc que c'est quelqu'un qui euh, le temps mais toujours en respectant Siwal Ibadat. Sans jamais fermer les mosquées, sans jamais, n'est-ce pas, empêcher ou bien faire une contrainte par rapport à l'adoration qui est euh, demandée à chaque musulman. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, on peut bien dire de lui qu'il est Fakhruddin al-Watan. Il est la fierté de la religion, mais il est la fierté du pays. Puisse Dieu lui accorder une longue vie. Et nous avons terminé avec Yarbi Mustafa. Demain, un autre poème, Inch'Allah. Wassalamu